taxawu tour de force bu Touba ci ndigalu Serigne Mountakha maire Abdou Lahad Ka ànd ak gouverneur Hizbut Tarqiyyah ak waa ak mbooleem équipe technique yi ngir nag tey ji réceptionné borne yi nga xamante ne ginnaaw bi ñu defee ab wër xool ko wàññikuwaat nañ xayma yi ko liggéey liggéey bi noppi ñu war koo samp samp bi nag pare na tey jii bañ war koo réceptionné loolu nag moo tax tey ji maire bi Abdou Lahad Ka jóg ànd ak gouverneur ak sous-préfet ak mbooleem autorités yi nga xam ñoo ci war a ànd ñu ñëpp nag ak Serigne Youssou Diop mi jiite daara Hizbut Tarqiyyah ngir ñu fas yéene liggéey boobu biñ ko wëree ba noppi nag ñu teewlu kàddu yu bàyyi ko ci waa CADAS après ginnaaw kàddu waa CADAS tamit nag gouverneur yëg na ay kàddu yu leeralaat liggéey bi nga xamante ne Serigne Mountakha santaane woon nañ ko fi ñu tollu tey jii. ku woon ci kilifa gi gouverneur euh, monsieur Gorgui Mbaye euh, de la région de Diourbel moom mu con convié woon le service tous les services techniques pour ñu accompagner Serigne bi ci ci sàkkuteef boobu mu sàkkuteef ci wàllu titre foncier bi. Euh, c'est vrai qu'on a fait des réunions. Nous avons fait des réunions au niveau de Djurbel, au niveau de, de, de Touba. Rien que pour euh, harmoniser ce qu'on Finalement, nous tracé un planning de travail pour que nous avons commencé. Ci wéru koor bi ci wéru koor bi lañ commencé et dans un premier temps def état des lieux bi beneen bi ñu implanté de la TFB du côté ouest je suis du côté Touba Fall du côté nord je suis du côté Missira du côté ouest je suis du côté euh, euh, de ji mais ci côté sud bi le côté Mbacké bi côté Mbacké bi y problème de de problèmes. problème y beaucoup de problèmes. ay habitation déjà yi fi qui ci diggante bi di di di servir de de de limite Il ay route nous mënuñ faire des bornes. borne yi ci yeneen côté yi lañ ko war mën a def borne bi ñu commencé bu nekk ci route nationale numéro 2 ñu jëm foofu c'est la borne 33 foofu lañ tàmbali dem ba ci borne 34 moom moo yem Touba Fall après jóge borne 34 dem ba borne 1 moo nekkee ci côté bële vers le au nord-est jógee borne une dem ba borne 2 moy côté est bi jóge fofu wacc vers Mbacké donc ana lool moy liguey bi té liguey bi aussi vraiment liguey bi rafet na trop trop trop trop trop su fekkone ne Hizbut Tarqiyyah bàyyi nañu ko ñun cadastre nañ son heure bi du fekk ñu xajal mais vraiment ci deggu deggu Sëñ Youssou accompagné ñu ci walu xaalis accompagner ñu ci walu matériel accompagner ñu ci walu conseil

ak jano euh, gi nga xamante ne mooy askanu yenn euh, village yi fii. waaw ah, li may njëkk def damay tànki sant damay ndokkeel ñi seqoon liggéey bi te ñu ànd ko parce que xalif général euh, sëñ tax Mbacké moo ñu ko ñaanoon pour ñu defal ko ko ñu daal di xam ne lii lu baax la pour Touba mu yebal maire mi sëñ Abdou Lahad Ka ànd ak sëñ Atou Diagne daal la ko yàlla yërëm ànd ak Youssou Diop ñu ñëw seet ñu ñëw vers l' administration administration nag ay service am la am. ma daal di wax ak cadastre ak domaine ñoom ñëpp ñu wàllise ñëw jàpp ci liggéey boobu waaye li liggéey bi baaxee ak nu mu rafetee ñaar a ko waral benn bi dañu ànd ak ñëpp ñu ñu war a àndal muy maire yi nga xam ne dañ ko séq ak képp koo xam ne yaakaar nañ ne séq nga tiit foncier bi dañ ci war a bokk ba ñuy tàmbali loolu def nañ ko xëñ ne may nañu lu bari waaye euh, Hizbut Tarqiyyah te euh, euh, sëñ Youssou Diop jiite leen ñoom dëgg yàlla ñoo ñu mën a may ñu gaaw ba am lii parce que seen ay moyens fekkee ko balay maire sax mi nga xam ne moo financé lépp di def loxam ci poosam ndax administration xam nga doo def engagement rek faw mu dem trésor yooyu di yeex moom préfet financé nañ jël seen ay alal la yëpp dugal ko ci ndax liggéey bi gaaw di félicité di ko félicité aussi waaye di félicité service technique yi ma àndal te ki leen jiite di receveur des domaines mu mu am Amakodou Diouf ànd ak cadastre bi nga xam ne fii la ànd ak ay agent guddeeg bëccëg ñu ngi fi di liggéey liggéey bu mucc ay bu mel waaye yéen ñi ànd ak ñun soo ba léegi xam ngeen ne liggéey bii lu ñu waroon a def la dégg ngeen euh, ñenn ñi yenn wane nañ seen njaaxale tout ça dalal nañ xel ñëpp ba ñu xam ne li ñuy def sax du contre ñoom waaye pour ñoom la ndax Touba bu jëmee kanam développé organisé pour waa Touba la ñi fi dëkk ñi fi dëkk ci waaye ñi mu dendeel ñëpp nag aussi euh, dañ ci dañ ciy bokk te dëkk nekk ci dëkk bu ñu xam bu ñu organisé dëgg yàlla moo gën dëkk nekk ci dëkk boo xam ne kenn xamul euh, fa fu waay di jaar te loolu ci kanam la jëm lañ koy xam lañ koy gën a xam na am tey borne dañ ku nekk xam ne limite foncier bi fan la tàmbalee fan la yem waaye ci kanam tuuti ginnaaw ba ñu amee plan directeur d' assainissement suñu amee suñu plan directeur d' urbanisme dañ xam lu ne fan lañ koy def fan la dëkk bi jëm euh, lan la ñu prévoir pour hôpital lañ leen prévoir pour tali lañu leen prévoir loo xam ne dañ ko war a denc pour euh, ndaw ñi ñëw ëllëg yooyu yëpp boobaa la ñuy xam njariñu dëgg-dëgg li ñuy def lay tey waaw booba waaye nag euh, Euh, baax na ay dëkkandoo bu ñu dëkkee ku nekk xam tam fa nga tàmbalee ak fa nga yem waaw loolu lépp jabootu sëriñ bi ne nag ñi ci biir rek sax ñi ci biti sax jabootu sëriñ bi lañ waa day baax ab titre foncier ñu xam fan la tàmbalee fan la yem ba loo cay def tam nga xam li nga yor sa loxo naka la toll am na liggéey bu ñëw ci kanam nag liggéey boobu waa ANAT mooy agence nationale de management territorial day ñëw fii bind nañ leen lettre boobaa ñoom dañuy xool seen diggante diggante commune Touba

ku ci nekk dina dëkk dëkkuwaay bu rafet bu moderne ndaxte Touba mérité na loolu te foofu lañ jëm incha allah.